auzu billahi mina sheytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa Daaru Salaam Chifaou ñoo ngi leen ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaatu li xur àdduna ak alaaxira di ko ñaanal mboolem ko abonné rek ca page Facebook ba ak mboolem ñu ni topp ci YouTube ñoo ngi leen ziar baax tey nag ma ñëw ci ay laaj yu fi ñëw ci wàllu gént gént ndax ah, gént dafa nekk loo xamante ni du ku la neex fu la neex toog firi gént du fu la nekk fu la neex toog wax ci gént dax gént dafa am ay lu am la nag moom gént waaye ni ko nit ñuy firee léegi man jaaxal na ma lool ndax gént daal heure bi nga ko génte yow mi ko génte ci am solo ak bis bi nga ko génte ndax heure bi da ci am solo lool ak bis bi nga ko gént waaye toog ne gént naan nangam rek ku dëggul fitne dala koy firil moom loolu xamuñu ko noonu imaam ahmad mi nga xamante ne ni ci téeram bi moo daq firi gént ci àdduna bi ñaari nit gént nañ kenn ki ne dama gént di noddu mu ne ko yow de bu boo nga dem jënd mbàjj bu xam ne déwén da nga dem kaso keneen ki dikkaat ne ko damay nodd dama gënt di nodd mën ne ko yow bu yow nga taggoo say mbokk di bu déwénee da nga dem màkk xam nga ñaar yooyu benn gént la te bokkuñu lu ñu leen firee moo tax firi gént jafe gént nag mooy gént weer gént weer dana baax waaye fa ko génte xam ko day baax boo xamee fa nga ko génte ñu doon la ko mën a tekkil gént nag lu doy waar la ndax booy soog a tëdd moom boo géntee liy répertoire la rek lu nekkoon ci sa xel ak li nga doon def ci bëccëg bi rek mooy dellu siwaat booy doo ko tëdd bu guddi gi soree nag ci gént mooy foofu la seytaane di jóge loolu moom loo fa gént rek seytaane la buñ noddee nag noddu gu jëkk seytaane dem na fajar googu nag loo fi gént nag moom lu wér lay doon ñaare waaye moo leeral ne juróom benn fan boo ci géntee juróom-benn fan ci weeru wolof na laa wax boo am lay doon bu fekkente ne nag waaye doo ko wax nag boo ko bëggee mu am doo ko wax bu fekkee da ngaa gént ci juróom-benn fan ci weeru wolof boo bëggee mu am bu ko wax kenn waaye nag lii tamit boo ko géntee ci weer yi gént yu am la fukki fan ak juróom-benn fukki fan ak juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru wolof loo ci gént rek day am. li nga xam ne moom du am moom boo ci génn lu mu njàng-njàng jarut tiit mooy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru olof boo ci génte génn ko du am ak ñetti fan ya ak juróomeelu fan ya ak ñaar fukki fan ya ak benn ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ak ñaar fukki fan ya ak ñeent ak ñaar juróom yooyu loo ci géntoom daanaka du génti dara du am gént nag boo ko bëggee di def wala ngay gis booy tëdd da ngay diwoo karité sa kanam da nga gént wala meenum poftan nga diw ko sa kanam danga gis wala xasum xay nga diw nga sëlmoo ko danga gis boo tëddee wala doomu taal doomu taal boo ko xalam boo ko diwoo sa kanam booy tëdd tamit danga gént da nga gis leer waaye nag gént loolu moo tax mu jafee tekki ndax heure bi ak bis bi da ci am solo lool kon ñoo xam ne gént moom lu am la nag moom waaye bis yooyu ma wax rek lu ci waay gént rek bu yow ba nga xam comme na ma ko waxee rek dana leer ci sa bopp waaye ku bëgg di gis nag moom dëgg-dëgg géntu suñu borom walla booy tëdd da ngay wut nga géeganoo ko wala reenu ngaw boo ko géeganoo da gis dara boo bëggee di gént wala nga wax ñetti yoon bisimilaay sikim kiis makan kiis aman kiis yaa xayu yàq yum bisimilahi sikkim kis makan kis aman kis yaa xayu yaa qayum loolu boo ko dee tëdd wax ko ñett yoon suñ borom dana la woon ay gént yu leer nañ kon daal yéen waa Daaru Salaam si waaw ñu ngi leen ñaanal jàmm gudd fan wér géem xéwul gerte defaru àdduna ak ñëw ci fiir gént incha allah rabbi waaye loolu dañ ko doon leeral ci ñiy laaj ci gént ak gént dafa naqaree wax moo tax ñu doon leeral lool ci gént yi ndax toujours nga dégg kuy wax ci fiir gént rek waaye lu jëpp moom dañuy wax lu leen neex rek ñoo ngi leen ñaan jàmm guddóon wér gi mu xëy yo defal àddina